te xam ngeen ni tourisme religieux li màggal ak Tiwaawan di indi ci déplacement ci nit ak ci tourisme beneen amu ko fi si sur le plan même circulation même aviation ak vol yi ni ñuy ñëwee sax xam ngeen ni amul leneen lu ko mën a indi loolu unique parce que suñu Sénégal yi nga xam dañ nekk à l'étranger diaspora bu ñuy ñëw fii seen ñëw yëpp dañ koy dàkkal ci màggal walla gàmmu ci lañu jël seen vacances pour ñëw malgré fii la ñuy dëkk mais am na ci ñoo xam ne bu ñu ñëwee dañuy delluwaat ñu bugg loolu aussi ngeen bàyyi ko xel dañoo xam ne que tourisme la jël dinañ ko doxal parce que nag dafa bokk suñu biir culture dañ ko war a doxal wane ko wane ko tey par exemple mun naa la wax benn affaire bu am importance mooy tey jumaa bi nga xam ne moom la ñuy defar Tiwaawan am na ñoo xam ne ba léegi dañuy bëgg a ñëw di ko xool di ko seetaan te amuñu infrastructure yi nga xam ne moo war ci biir dëkk bi donc am nañu espace bi mais amuñu moyen matériel pour defar ko mais am nañu nag dañu war a am nag ay zone de résidence yoo xam ne pour nit yi bu ñu bëggee ñëw ziar wala bu ñu bëggee ñëw dara def ko bi ci des j'ai euh, am signé une convention avec le maire de Fès pour sur le tourisme religieux nous ils sont d'accord pour participer même au billet Si bii bi nga xam ne pour la nit ñi sommes pour d'accord pour participer pour alléger le montant du billet benn li ñu bëggoon mooy vol bi au lieu Casa directement vol yi di ñëw di jaar bu Gare Marrakech directement ñëw sur sur sur euh, Fès parce que loolu trajet yomb pèlerin Sénégal pour dem Fès ndax difficulté ak pour ba pour Fès une journée de encore pour encore sur Fès donc loolu aussi vraiment ñu ngi doon commencé discuter discuter naa ci ak waa Air Sénégal ñu doon ut ay solution ñoom charter la ñu proposé woon or waa Maroc ligne la ñu bëgg ñu def ko donc loolu aussi yàgg nga ci biir aviation kon li may wax xam nga ko donc loolu aussi bëgg nañu nga wax ci ak sa collègue bi nga xam ne mooy ministre bi yore euh, le transport aérien ñu fexe ba ñu am ligne boo xamee ni day def Dakar Marrakech fees parce que loolu dina dimbali pèlerin yi dina lay wàññil coono boo xamee ni boobu léegi amuñu ko ñoom dem nañu ba proposé ma ne ma bu ñu bëggee benn site ñoom mën nañu jox terrain à Fès boo xam ne dañ koy def la maison de la dañ koy def maison wu tourisme pour le Sénégal donc loolu aussi moo la ko pour nga xam ko bu fekkee am nañu ay possibilité bu ñu demee ñu def ko foofu parce que loolu aussi vraiment lu am importance la pour suñu mbokk yi dem foofu parce que dina am yoo xam dañ fay dem mais du ñu am fu ñu dëkk wala dañuy dëkk ci kër nit yi loolu aussi day nekk loo xam ne day nekk beneen ndimbal moo xam ni bu fekkee dox nañ ko dañu mën a dimbali en tout cas bëgg nañu aussi daal nga jàpp nañu si Tivaouane au moins parce que tourisme bi ak nit yi fay ñëw bëgg nañu ngeen def ci seen loxo au moins ñu xam ni que ci li ngeen di aider pour fi nga xam ne fa la nit ñi war a dëkk ngeen dimbalewaale la commune pour ñu mën a am ay effectifs pour les merci. je vous La parole est à notre collègue